bien alhamdulilah. alhamdulilah honorable député Nangu Sam mu nekk député bu diaspora plus euh, ca Italie. Europe du Sud. exact ah, waaw euh, ñu ngi lay ziar ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan en direct ci Sénégal. waaw maa ngi lay nuyu Ajaratu di am mbégte bu baax euh, ci invitation bi di nuyu waa Sénégal yi ñuy déglu yëpp yi ñuy mhm. seetaan di ci am mbégte bu baax di rafetlu seen liggéey aussi. Mhm. honorable ñu toll ci jamono boo xam ne gis nañu ne coronavirus mi ngi ci eh, Sénégal waaye it mi ngi ci eh, fi nga xam ne moom mooy Europe ah, loolu itam ci yëf yi sax fi lal fekk nga xam ne moom mooy Sénégal nan nga koy dundee ci jamono ji waaw waaw dund bu xaw a jafe nag parce que xam nga rek boo yoree njaboot ci àll bi eh, lu mel ni fekk la fi ci liggéey bi ah di nga am ay soucis loolu moom waxuma la njaboot sa njabootu bopp gi sa kër waaye njabootu diaspora bi yëpp. Mhm. Eh, nga gis ci conditions yi ñuy dunde eh, mu metti lool nag très loin de leur famille aussi ñoom ah, nga gis eh, réew yu mel ni Italie Espagne États-Unis nga gis li fay wàcc liggéey ci par bés loolu day day day jaxase bopp surtout nag ñu confiné la entre quatre mille Euh, ci xalaat ngay dëkk ci angoisse ngay dëkk loolu biir euh, bu metti la wax dëgg yàlla mm-hmm. ah du ñu def lu dul di leen woo saa su ne di leen encourage di leen massawu ah di leen delloo suñu borom rek yàlla nga xam ni moo waral lii lépp euh, di ko ñaan mu teel ko jeexal ci àdduna bi yépp nag ñu dund ba di ko fàttaliku. amiin Mm-hmm. ni nga ko waxee léegi ci Italie ñu bari ñu ngi fay ñàkk seen bakken ci li nga xam ne moom mooy jàngoro ji mais gis nañu nit ci décision yi nga xam ne dañu ko jël képp ku ñàkk bakkenam euh, ci jamono ji te feebar bi dal la du mën a rapatrier sa corps yow mi nga xam ne yaay teewal diaspora bi loolu lan moo ci sa xalaat. waaw décision boobu moom dañ koy ñaawlu parce que du loo xamee ni dafa rafet sax vis-à-vis de la diaspora. Mm-hmm. parce que nag lu mu ci mën a doon ay doomu Sénégal ñoo nekk Euh, ku ne xam na lien bi am entre émigré émigré bi doomu Sénégal bi nekk bitim réew ak réewam euh, doomu Sénégal bu nekkee ci kaw euh, lu mu yëkkati Sénégal la koy indi lu mu yendoo day bëgg mu fanaan si Sénégal mhm. ndax amour bu mu am ci patrie bi donc loolu doon histoire boo xamee ni dafa yàgg nag surtout en Europe Amérique et cetera mhm. ku fa mës wàcc liggéey quelles que soient les circonstances danañ lijjanti kof kof kof dërëm tànk ñaar dërëm ba fexe ba indiwaat la ci say mbokk tey lu mel ni bu amee ñu xëy mu doon décision boo xamee ni kenn tàgguwu ci kenn kenn laaju ci xalaatu kenn ah bu ne ku fa wàcc liggéey dootoo ñëw Sénégal loolu dafa metti lool dafa tiis maanaam décision la yoo xamee ni mën naa rey sax nit ku feebar. Mm-hmm. parce que boo tëddee xalaat ni yow boo wàccee liggéey. Mm-hmm. doo dem Sénégal say mbokk dootuñu la teg bët. loolu bu duggee ci sa biir bopp bi am ñu ci liggéey maar day tàlli mhm. donc vraiment du lu rafet vis-à-vis de la diaspora du loo xamee ni aussi euh, raf waa diaspora bi rafetlu dañ ko mhm. parce que nag lu mu ci mën a doon tey ah, dafa laaj taxaw seetlu euh, lan la diaspora bi di représenté ci mim réew boo ci defee boobu seetlu ba pare da nga war même ko fi wàccoon liggéey ñu jox ko ay honneur parce que mérité nañ ko nag buñ la joxul ay honneur nag tey bëgg laa sacrifier bàyyi la ñu di la denc ci ay dëkku Europe nga xam ni ñoom xaj na am na réew yu ko am ci seen culture. Mm. mais ñun Sénégal dafa bokkul suñu culture bokkul suñu aada bokkul ci dara ñun li ñu xam mooy guddi guddi ñibbi Sénégal. Mm. ak mm-hmm. quelle que soit circonstance lu mu metti metti guddi guddi ñibbi Sénégal. Mm-hmm. lu ñu am muy dërëm muy tànk bu ñu sañoon tey ñëw investir ko biir Sénégal. donc vraiment la ca waroon a tegu mooy ku ci liggéey wàcc. foo mën a wàcc noo mën a wàcce parce que nag li ñu wax naan ay coronavirus day wàlle néew yi dañuy éviter muy contaminé yooyu ñun bi ñu ko étudier scientifiquement c'est pas vrai bi ñu ko xoolee xool ko xoolaat ko parce que nag du ñu ay dof ñun luy lor Sénégal bi duñ ko def Sénégal ñu kenn gënuñu koo bëgg ñi fi nekk di suñuy njaboot aussi kenn gënu gënuñu leen a bëgg. Mhm. du ñu jël mukk luy lor bi doomu doomu Sénégal fii ci réew mi naan ñu ngi dof dof di ko dugal ci réew mi loolu xalaatuñ ko. Mhm. parce que ku wàcc liggéey en Europe nag. nan lay toppatoo nan lay defaree vraiment mën ngaa dugg Sénégal say mbokk denc la en toute euh, intimité te doo doo déranger kenn doo sonal kenn. ma laaj la parce que néew yaa ngi ñëw. Mhm. néew yi ñëw nii façon bi ñu leen di dencee entre ci benn cadre familial bu ndaw vraiment ñi nga xamee ni wàcc nañ liggéey ci coronavirus bi aussi mënoon nañu lijjanti ba ñu ñëw fii ñu denc leen de la même manière te du ñu sonal kenn du ñu am benn risque de contamination. Mhm. parce que yooyu moom c'est dégagé ay risque contamination c'est dégagé. Mhm. c'est des mesures yoo xam ne abusives yu ñu jël rek vis-à-vis de la diaspora te tant que ñun ñu ngi mën a dund di xeex boobu mesure je crois que gis ngeen ci jamono gis ngeen bataille bi ni ko diaspora bi engagé parce que ñun soxlawuñu xaalis ñun ku ñu respecté wul soxlawuñu sa xaalis. Mhm. loolu dafa war a leer dès le départ. ay jël ay douze milliards vingt milliards cent milliards di ko dugal ci diaspora bi jox diaspora bi cër moo ñu ko gënal loolu na leer dès le départ. Mm-hmm. bu ñu nekkee nag am doomu Sénégal nañu respectante nañu xamal ni réew mi lu mu mën a demee ak nu mu mën a tollu fu waay mën a nekk ëllëg mën nga koo yor ci say loxo ndax loolu rek moo fi nekk donc ku fi mën a nekk di jël ay décision danga war a respecter ñi nga xamee ni décision yooyu ci ñoom la jëm lu toll ni diaspora encore une fois lu mët ci trois millions de sénégalais ak poids bi ñu am ci réew mi bu ñuy jël ay décision ci seen ko war na leen a tàggu war nañ leen ko yëgal war nañ ko concerté ba xam lu tegu ci yoon la wala lu teguwul ci yoon mais bii moom bii moom ëpp na bii moom c'est trop c'est une décision de trop. d'accord ñu bàyyi la ak euh, euh, Cheikh Kandé. honorable ñoo ngi lay jaajëfal déjà ci nangu bi nga nangu intervenir fii ci sénégal senego.com. merci ñu lay nuyu. maa ngi leen di fay maa ngi leen di fay macha allah. d'accord honorable euh, yaa nekkal fii véritablement la diaspora assemblée nationale ngay député. Mm-hmm. Euh, ñoom ñëpp tey mu nekk jaaxare ci ñoom euh, ci ñi nga xam ne mën nañu génn àdduna ci feebar bi foofu ci tuugal. Mm-hmm. Euh, ndax yenn à niveau ya ngeen di def porter benn plaidoirie boo xam ne dafay permettre bu amee kenn ku wàcc liggéey ci loolu fële ci Europe bu mu nekk wala États-Unis ak fu mënta nekk ci bitim réew pour que bu amee rek ñu mën ko rapatrier. effectivement mais loolu ci leen mës di ne ñun état mës di jël suñu néew en charge mës ñoo nangu sax kenn bi ci dugal loxoom ñu ngi organiser wu ci seen biir social daayira yi ñu ngi organiser wu ci seen biir social ngi heure bu demee ba kenn ci ñun wàcc liggéey du mat vingt quatre heures wala quarante huit heures ñu rapatrier kooram jox ko ay mbokkam. Mm-hmm. loolu kon bu amee lu mel nii nga xamee ni tey feebar bi ku ne xam na ampleur bi mu toll ku ne xam na métit bi ci nekk y a trop de morts. Mm-hmm. nit ñi déjà stress bi nekk ci seen bopp yi. ñu confiné wu dans les maisons là yow ku ne xam na Europe ni ñuy dundee. benn këru cinq mètres carré nga nekk ci biir sa waaja sa lépp nekk ci biir ñu boole ci tëj la ci ni la doo génn booy génn da ngay am autorisation boole ci dugalaat sa bopp ni mën nga feebar moins de quarante huit heures nga wàcc liggéey boo wàccee liggéey foofu lan lay denc loolu dafa diis. Mhm. vraiment métti na diis na. te loolu ñun rafetlu wuñ ko. liñ ci mën a taxaw nag mooy ñun état mënuñoo xeexe moom ndax amuñu doole ji li ñu mën mooy en tant en bon citoyen. constituer ay collectif tey boo demee France ab collectif nga fa bu rëy bu ñëpp bokk pouvoir comme ñi bokk ñi faral Macky Sall sax ñoo ci jiitu nga dem itali Italie collectif nga fa bu toll ni ni nombre de nit ña toll nga dem États-Unis collectif nga fa juddu ak ñi nga xamee ne c'est des bonnes volontés yu liggéey ci médias yi ñëpp jógandoo ni lii waruta a nekk warut a continuer. Hmm. ce que nu demando au président de la République son excellence monsieur Macky Sall Mm-hmm. ak son ministre des affaires étrangères et des sénégal de l'extérieur mm-hmm. monsieur Amadou Ba que décision bi nañ ko teg ci suuf parce que décision bu impopulaire la bu teguwul ci xam-xam teguwul ci euh, concertation teguwul aussi ci respect bi ñu war a jox diaspora bi mm-hmm. c'est tout ce que nous demandons maa wax na léegi sax euh, bu fekkoon ne benn ministre moo fa demoon euh, yàlla def moo am feebar bi foofu ba mujjee faa gaañu ñoom dinañ fexe ba indiwaat ko lan moo tax mënuñ ko defar pour yeneen sénégalais yi ah mais absolument tey bu fa kenn ci ñoom ba ku ku mérité les honneurs de la république xaw ma nag les honneurs de la république naka la ñuy distinguer ku ko mérité ku ko mérité wul mais gis nañ fi ñu taal fii avion dem jëli ab néew indiwaat ko. Mhm. c' est plus de cinquante mille euros c' est plus de cent mille euros. c' est des dépenses du du contribuable mhm. bien bien sûr que nous les respectons. cër boobu yàlla moo koy joxe ku ko mën a amit war nañ la ko jox. mais n' empêche ñi nga xamee ne ñun nous sommes des citoyens lambda. dem génn bitim réew dem dee ci xare mais il faut se rappeler que même Vietnam li mu doon tàng tàng tàng américains yi mësu ñoo bàyyi seen néew ginnaaw quelles que soient les circonstances yeneen réew yi du ñu mës a bàyyi seen néew ginnaaw mhm. quelles que soient les circonstances te honneur boobu sénégalais yi mérité nañ lu ko ëpp ndax sénégal amul ak foofu ñu def cent temps bi amérique wala wala europe loo gis gis gis mooy ñibbi si sa réew mhm. ñun lu ñu am jën jënduñu kër europe jënduñu kër États-Unis jënduñu kër feneen suñu lépp dañ koo investir biir Sénégal suñuy mmh. njaboot nekk biir Sénégal suñuy wéjur nekk biir Sénégal mmh. ñoom tey ñi nga xamee ne tey seen doom ñu ngi Sénégal seen baay mu ngi Sénégal seen yaay seen yaay ñu ngi ci àll bi ñu ngi ci kaw naka la ñuy xalaate ni sama doom ji kat wala sama wéjur wi tey mag la mu nga Europe bu wàccee liggéey dootuma ko gis gis ngeen film boobu ndaw soo su def ndaw si nekk France la euh, nu mu tuuti fàtte naa turam euh, jëkkëram jëndoon na bàmmeel fii ci Saint-Lazare kooku tey bu wàccee liggéey xanaa loolu nga xam ni moo bés di bëgg-bëggam mu jël alalam def ci jënd fii bàmmeel à Dakar Saint-Lazare bu wàccee liggéey jabaram quelque que soit alpha ñëpp waroon nañ ko jàppale ba mu indi jëkkëram fii mu war a tëdd mhm. fii nga xamee ni fi la choisir doon muy Sénégal mu war ko fii tëdd non vraiment dafa am yoo xamee ne dafa ëpp Mm-hmm. merci beaucoup alors voilà. lu jëm ci cellule de lutte contre euh, euh, la pandémie du coronavirus gis nañu mm-hmm. ne daal nañ koy def fii ci Sénégal est-ce que impliqué nañ ci euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy député yu diaspora bi non non impliqué ñu ci dara benn réunion d'information lañ ñu mës a woo dem ministère affaires étrangères réunion ba yàggul mm-hmm. ça n'a même pas fait une heure de temps alors que nous étions nous sommes quinze députés yu nekk fii ci réew mi Mm-hmm. di représenter la diaspora dignement nag nous sommes des élus ñun nous ne sommes pas des nominés yoo xam ni dañ leen a choisir ci benn tas politique rek indi leen fi jox leen ay responsabilités. Mm-hmm. ñun nous sommes des élus légitimes de la diaspora. loolu mm-hmm. kenn du ko werante donc bu ñu bëggee respecter diaspora bi bu ñu bëggee jël cër jox ko diaspora bi war nañoo xam fi ñuy jaar parce que nag c'est pas facile. ku ne xam na ni ñoom ñi ne fii tey di ngan ngandalu di wër rajo yi di wax ak télé yi mhm. kuñ ci joxoon kuñ ci ne woon demal ci diaspora bi nga candidat pour nekk député doo feeñ sax ci suq yu mag ci ndaw yi ci ni ko course kat yi waxe doo feeñ sax ci mbayaar yu ndaw yi waxuma laa di génn député mhm. donc ce respect la dafa am cër buñ ko war a joxe buñ demee ba àdduna bi nekk ci crise des députés de la diaspora ne ci réew mi noonu ñu ci impliqué ay directeurs Sénégal de l'extérieur wala ay secrétaire d'État et cetera et cetera noonu la ci député bi amee place te ñoo moo leen gën a légitime foofu pour parler au non de la diaspora mm-hmm. donc loolu ñu def teguñu ko fen li ñuy def it ay plateforme ay inauguration yu ñàkk fayda yi euh, c'est du jeu d'enfant mm-hmm. ñun nous avons des priorités tey suñu wax du ay xaalis bu ñuy séddale diaspora bi dootul ay dërëm tànk yu ñu jël yëkkati sarax diaspora bi je vous rappelle que ñun fii ci réew mi li statistiques yi wax moo di mille deux cent milliards annuels la ñuy dugal ci réew mi mhm. oh mille deux cent milliards boo jëlee tey douze milliards xam nga lan la un un un centième kenn ëpp leen fi njëriñ mhm. xam nga loolu ça ne signifie absolument rien par rapport à la diaspora donc du lu ñuy tiitaroo waroon nañ ko sax rusa wax ci kaw euh, donc ñun talaguñu loolu de déjà parce que mesure bi tegu suñu ko rek dafa ëpp doole ñu ne fi naan dañuy wax fu mhm. douze milliards di dugg wala fu quinze milliards mhm. douze milliards boo ko dugaloon ci diaspora Gambie Guinée bi rek Mauritanie ak Maroc mu mu doy fa sëkk mhm. waxuma laa ngay tudd Europe wala Amérique wala Australie wala Argentine donc il faut savoir respecter les gens il faut ñu ñoom ñu xam ni ndomba tànk yi ñu yor bay diriger réew mi ëllëg day génn seeni loxo dem ci yeneeni loxo te l'histoire retiendra que ñii ñu suul Sénégal yépp c'est sous le régime de Macky Sall ñii ñu suul Europe je veux mhm. ñii ñu suul ci àll bi te mu naqari seen i mbokk nañu jàpp ni ce sera sous régime de Macky Sall. Mhm. loolu dafa mën a bàyyi xel. dafa mën a bàyyi xel. Mhm. nañ seetlu lu bari histoire day ñëw adduna bi lépp dafay jeex. nañu respecté diaspora bi nan leen jox seen cër. nan leen bàyyi seen tooguwaay ñii fa wàcc liggéey ay jàmbaar lañ yu dee ci xale ci xare bi. di doomu Sénégal yu wàcc liggéey ci àll bi. dañoo wuti woon rek pour indi Sénégal yàlla moom leen mhm. nañ leen jox seen cër ñu rapatrier leen mhm. ñu indi leen denc leen fi seen i mbokk kii même bu ñu demee au delà même de l' aspect sécuritaire bi nga xamee ne ñun garantir nañ ko ba pare mhm. bu fekkee dafa am ay mesures yu leen war a accompagner nañ def ni néew bu fi ñëw nañ jël benn gendarme ñaari gendarme benn pompier wala service d'hygiène ñu dem ànd ak ay mbokkam ba denc ko en toute sécurité comme ni Mhm. ku fi wàcc liggéey dan lay jox say mbokk ànd ak yow denc ko nañ nañ def noonu procédure boobu mhm. parce que li wértu woon mooy bu fekkoon tey toit bi gis nañ ni lii day wàlle duñ ko mhm. mës jox sénégalais mu di ko dugal ci avion dëgg la donc ça veut dire que yooyu ñu wax yëpp teguwul fenn teguwul ci bëgg a jël ay décision gis leen ma j'ai pris ceci j'ai pris pour récolter des miettes ci OMS wala récolter des miettes sur les bailleurs loolu teguwul fenn il faut respecter les Sénégalais. d'accord c'est notre cri de cœur. alors euh, lu jëmit euh, honorable ci Italie googu gis nañu ne Sénégalais yu ci bari euh, ci jamono ji ci période bi dañu doon nekk ci yenn tool yi di liggéey ak yooyu te ñu ci bari ay sans papier la ñu woon. jamono mhm. ji ñu gis ne ñu ngi ci coronavirus mënatuñoo dem fenn est-ce que loolu ngi ciy bàyyi xel. waaw mais xam nga déjà les Européens ñoom fi ne fii ñu toll nga xam ni amatuñu main d'œuvre réew réewu yi ku ne xam na ni. Euh, crise la buy waaj a commencé euh, c'est une crise économique boo xamee ni tey pandémie bi bu jàllee ku ne yàlla rek a xam ñun sax ñu nekk Europe yàlla rit donc ils auront un problème de main d'œuvre pour relever le défi mm-hmm. déjà défi boobu tey fii ñu toll nii ana ana ñi nga xamee ni je donne l'exemple de l'Italie wala Espagne ana ñi nga xamee ni ñoo daal liggéey ci tool yi ci condition yi nekkatuñ fa tool yi bayoon nañ ko ba mu ñor ana ñi ko war a récolter ñu ci seen kër yi tëdd mënuñoo génn Mm. amuñu fitu génn donc ils sont obligés de régulariser les gens là régulariser ñi nga xam ne ñoo fa nekk di force sax bu mën a liggéey pour ñu dugal leen ci tool yi ñu dem récolter parce que bu ñu ko deful day yàqu mm-hmm. récolte yi tey des milliers de milliers de personnes ñoo koy def bu ñu ko deful day yàqu mm-hmm. kon ils sont obligés tegal leen ay plan yoo xam ne dina leen mettre en règle pour leur permettre de sortir de leur euh, boucle là pour dem liggéey je crois que loolu mooy tey politique bi nga xam ne am na Europe Euh, juste ñoom ñoo yittewoo ñoo yittewoo main d'œuvre moo tax ñuy régulariser nit ñi. mais c'est pas pour faire plaisir aux Africains. Mm-hmm. honorable ñu ngi lay jaajëfal bu baax.